bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain min zulumaati alwahmi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 waaye di nuyu sëriñ si ak soxna yi ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi wét jotaay bi ñaan borom bi mu def jàmm ci réew mi defal ko ñi dëkki réew mi mu mel ne suñu bindu démb ñu ngi doon waxtaanee lu jëm ci wàllu aj màkka ndax waxoon naa la démb ne boo génnee ci koor beneen ponk bi nekkaat ci suñ kanam te doon juróomeelu ponk lislaam mooy aj màkka moom itam am jamonoy boppam joo xam ne ca lañ ko cay def muy weeram yooyu nga xam ne moom la am ma waxoon la démb ne ci wàllu yóbbal bi day soxla ak xam moo tax fàttali gi mënta ñàkk ñaari xeeti xam yoo xamante ne benn bi mooy liñ lay wax ci njàngalim lislaam ci mënta ñàkk leneen li ci def mooy yiñ lay wax ci xam-xamu ku fa am expérience nga xam ne day jaadu léeg-léeg nit ki déglu ku mel noonu ñooñu ngay fekk ci avance yi nga bindu ñooñu ñooy doon ñaari giddi yi ak ñi nga xam ne ñoo ci aju yal na yàlla may ñi nga xam ne waaj nañ ñëpp ngir bëgg a dem baytulaayal xaraam suñ borom jàppandi la leen bañu dem ak jàmm dellu si ak jàmm ndax yéene lay doon rawatina ci suñu réew yi rawatina ñi nga xam ne dañu bëgg a yóbbu seen ay wayjur ñi nga xam ne it ñooy organise moo xam public la moo xam privé bi la yal na yàlla jàppale ñëpp defal leen ci ndam defal leen taw tawféex ñoom itam ala xaal ñu ngi ci jamonoom ñu ngi ci ay waajtaayam waaye noonu itam la ñuy soxlaa bàyyi xel suñu bopp ci lépp ndax réew meeg doxalin week léeg-léeg pëcc gi ak giko yi waaye olofay wax ne ku tànn desal kon nag faaw ñu tànn dara moo tax ñu tànn waxtaane li jëm ci ponki jaamu yàlla yi jombut li jëm ci actualité yeeg yeneen ponk yi ci def daañu ko am ci yeneen i jotaay wala ñu dégg ko ci yeneen i kàddu incha allah démb dama doon wax aj màkka ni mu nekk farata ma ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca xutba boobe nga xam ne moom la def te abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma nettali ko ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa def déclaration wax ne yéen nit ñi suñ borom day farataal na ci yéen aj farataal na ci yéen aj nee na am na kenn ku jóg ne ko ndax ci at mu nekk lañ ko farataal nee na yonent bi noppi ci beneen riwaaya kooku wax ko yonent bi ne ko su ma la waxoon waaw kon bu boobaa day war at mu jot te du ngeen ko man waaye alxajju marratan waxida fa man zaada fa huwa tatawu aj màkka day wenn yoon képp lañ ko farataal ci dundu nit ki koo xam ne def na lopp benn yoon nag lam def lum coobare woo def la aw yiw rek la yal na nangul leen ndax la leen gis xam ne dem na ay yoon yoon yoon léeg-léeg nga koo xam ne at mu jot mu dem wax dëgg yàlla ndax da ko boole ci bunti wutikaayi bam ak yëg-yëgam ya nga xam ne moom la ca am léeg-léeg ci njàngat am koo gisee ne léeg-léeg am koo gisee neneen ala kulli xaal ki koy def moom bu mbir mi leeree ci boppam ba xam ne yoon wu njëkk wa mooy farata yeneen yoon yi moo ko coobare woo def doo ko wax ne ko mënoon ngaa def nangam mënoon ngaa def nangam waaye bu fekkee koo laaxeenti biir la fàttali da di waxtaan rek su ko defee itam nit ki tànn ala kulli xaal fàttali gi lool la ndax wane ne lislaam dara diisu ci lislaam dara diisu ci loo mu diis rek suñ mbiri bopp lañ ci laxas waaye moom kese-kese lu oyof toyu la lu jàppandi la moo tax benn yoon la waaye benn yoon boobu mu nekk farata it ci ki ko man la nekk farata ku ko mënut wàcc na la kuko ko wàcc na la damaa bëgg a dem màkk damaa bëgg dem màkk léeg bu jaree nit mu yendoo dox ci naaj wi dem di ko ñaani wala mu jaral ko dugg ci ay mbir yoo xamante ne euh, lislaam tegu ko ko wala mu tegoo ci yenn coono àdduna yi jëratu ko jëratu ko bu dee yàlla rek a tax moom boo ko mënut taam yéene ji da am yool ba sax nag ndax yéene ji nga ci am te borom bi subxanahu wa taala dogal ci yow sag ñàkk koo man dogal ci o sax ñàkk koo man moo tax bari na lu lu nit di lebi wala nit ki di ko ñaan lislaam tegu ko ko moom teggiloon na ko noppaloon na ko ci waaye ñun nag ñoo ci du noppalu ñun ñoo ci du noppalu aj màkk gi ci loolu la bokk euh, boroom xam-xam yi dañoo am ag wuute ci warteeg aj màkka ci gaawe ko ak yeexe ko maanaam gaawa a aji ak yeexe ko maanaam nit ki am na lum aja ji mën naa aji waaye mu ne damay xaar bañ a gaaw a dem am koo xam ne nag dafa gis ne am na ko kon daa war a gaaw a dem dañoo ñëw ci ay waxtaan yu mel noonu bu ma delloo ci borom ngir yi muy fuqaha yi ku mel ne école imam Malik ak imam Abu Hanifa ak imam Ahmad ak ñenn ci waa kër imam Shafi'i ñoom liñ gën a dëgëral ci ay wax mooy wane ne dañ koo war a gaawe koo xam ne da koo man warteef la ci moom mu gaawe ko warteef la ci moom mu gaawe ko ñoom ñu def seen delluwaay waxi abdullah ibnu abbas ji radiallahu anhuma di ab xadis bu mu jële ci ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam mu ne man araada alxajja fal yaxujj fa innahu qad yumarridu almarid wa tadilu rixla wa takunu al xaaja mu ne yonent bi alayhi salaam nee na koo xam ne bëgg naa aji ci yéen c'est-à-dire daa nam ma aji nekk ci waajtaayu bëgg a dem yey tax mu dem yëpp jàppandi ci moom tam am yéenee dem nee na na dem aji bu ko waaj bu ko yeexe fal na na ca daal di dem ca saasa ndax nee na mën naa am nit ki am xéewalu mën a aji waaye yeex a aji far feebar dal ko ndax feebar moom day dale nit mën naa wér ren bu déwénee mu feebar am na ku mënoon daaw te ren mënut am na ku mënoon daaw te ren nee na itam mën naa am itam waruwaayam réer ko maanaam mooy kon ni mu ko jekkoo woon ren déwén ñëw yàlla dogal mu ne ci situation ci xat-xat yoo xam ne du ko man wala mu am jeneen xaaju joo xamante ne mën na koo gàllankoor moo tax mu gis ne kon ñu dégg ñoom ci xadisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kon nako ko gaawe na ko gaawe koo xamante ne bëgg ngaa aji euh, na gaaw na ko gaawe na ko gaawe maanaam euh, ñun lii am nga xam ne may bàyyi ba nekk mag wala pareeguma pour bàyyi nangam ndax ñun moom dañoo dal xela dal xel dal xel ba nga xam ne yéeme na waxuma sax ci aj màkk waaye nit koo xam ne pareegoo pour tuub ba léegi maanaam da ngay jàpp ne am na looy def loo xam ne bëgg goo koo bàyyi waaye yow ci sa bopp xam nga ne baaxut nag nga xam gi nga xam ne baaxut moo tax nga jàpp ne ko aji ba ñëw waratu koo def moo tax nga jàpp ne ku aji ba ñëw waratu koo def bu ko defee nga ne damay bàyyi ba man koo bàyyi léeg jigéen ji boppam nen képp képp képp la bëgg a gut bàyyi moom jàpp na ne daal bu ajee ba ñëw daa war a muuru muuraay gi war a tuta dañ te dëgg la jigéenu julit daa bokk ci lim war a bàyyi xel mooy colug julit gi lislaam jàngale mu jàpp ne mën a gu koo sol rek mu ne kon damay bàyyi ba ca kanam damay bàyyi ba ca kanam mën naa am position bi nga nekkoon ba manoon a aji ci ak piix nga dem nag ba pare léegi pour mel melokaan yu ma wax waaye xat-xati jamono gaar la mën naa doon feebar mën naa doon ay yeneen mbir kon gaawe gi day nekk farata bu boobaa ci képp ku ko man ndax ki ko man la war ki ko mënut waru ko ki ko mënut waru ko léeg ñu wax ko léeg nit ne damaa bëgg a yóbbu samay jur màkk lu baax la nag lu rafet la diine rafetlu na ko aada rafetlu na ko rawatina suñu aada ñun ndax damay faral di wax ne doom ju judd ñu uuf ko di ñaanal ndeyam ne ko yal na dund ba yóbbu la màkka bu màggee ba yóbbu ko màkka loolu eh, àggale na mébét def na mbir mu rafet waaye nag ki nga yóbbu moom bi ko amut waru ko waru ko moom ndax amu ko yow mi ko am nag yow moom dalaa war yow yow mi ko am dalaa war boo ko yóbboo dimbali nga ko ci mu matal ponk lislaamam ndax loolu ak cant la yal na ko yàlla nangul ñi ko defal seeni wayjur ñëpp waxuma la sax ñi nga xam ne dañ ko defal seen waajur yuy dund mais am na ñoo xamante ne seen waajur day faatu ñu jox nit mu ajal ko ñu jox nit mu ajal ko waaw waxoon naa ne loolu day fekk nit ku aj ba noppi maanaam ku mas a aj am naa sama menn mbokk sëñ xaadim sekk di jarbaatu suñu benn auditeur alaaji Pam Njoogu Sàll am na at moo xamante ne bañ waajee bay aji eh, sëñ Pam joogu da ko wax ne ko na sàkku ci man ma ajal yaayam nga xam ne at moomee yàlla kóllëre bañ demee di aju woy juróom wu jigéen lañu ajaloon ndax fekkoon na ñu aj ñaari yoon loolu li ci bëgg wax rek mooy da ngay gis ñun yéene tiyaaba suñu wayjur lim ñu jaral yéene tiyaaba suñu wayjur lim ñu jaral waaw wayjur wu faatu moom nit euh, di dem màkka di aji fekk mas naa aj ba noppi nga ne ko damaa bëgg nga ajal sama wayjur léeg-léeg am na ñoo xamante ne dañuy xool ku doon aji ñaata ngay fay wala ñaata ngay joxe ci aj gi ñu yëkkati ko jox nit koo xam ne mas naa aji kooku dem aji bu demee ba fa ñuy yéene bu demee ca fa ñuy yéene aj gi ñoom imaam Assane Cissé Seck maa ngi koy nuyu baax a baax moo ñu jàngal aj màkka bu ñu tànnal nit ñi ne ana ñi nga xam ne daa am ñu ñuy ajal ñu ne ñoo ngi nii ñu ne taxawee leen nii bu ñuy yéene ñu wax leen koy ajal nit noo yéenee yow mal xiyaam lay tëdd ci bàmmeelam ñu ne ko pëkk-pëkk jox ko tiyaaba ju rëy joo xamante ne mën naa am ñu fekkoon ko ciw mar mu doon ndox mu muy naan ba keroo muy tabbi aljanna mën naa mu fekk ko ci tàngoor mu doon ker koy feral ba keroo muy tabbi aljanna li ma bëgg wax rek mu doon tiyaaba ndax tiyaaba ci àllaaxira mooy fekk nit ki ca la mu bëggul woon a nekk mu soppi ko ca yóbbu ko ca xaal ba nga xam ne ca la bëggoon a nekk mu ne lii fu mu jógee ñu ne ko sa doom ja nga bàyyi woon moo aj ba noppi yéene la ko tiyaa bay aj jógee moo nekk nii wala mu ñëw yowmal xiyaam ñi ubbi ay kër yoo xam ne fii ñu aje woon màkkaa fi dugg mu gis ko mu yéeme lool moom sax du ca boole boppam ndax day jàpp ne ca àdduna moom ajiwut woon waaye mu xool rek seenu turam ci ab appartement caabi yee lang mu ne lii la ñu ne ko man aju ma woon di xanaa malaaka yi dañoo juum ñu ne ko ñun duñ juum de dañoo respecté suñu liggéey waaye sa doom diw moo joxoon diw mu aji ajal la te yàlla tax tiyaa bay aj googe moo nekk nii léeg-léeg wax Oustaz Alioune Mbaye ne ko aj googu li tax sax mu yéeme mooy ki nga xam ne dafa am kum ne damaa bëgg nga ajal sama waajur yëkkati alal jox ko léeg-léeg aj googu sax man day gën a dal ci man xel ndax moom bi mu ko defee ak yéene ju sell jim ci am ak yéene ju rëy jim ci am borom bi subxanahu wa taala moom bindal na way juram tiyaabay aj gu nangu bindal na way juram tiyaabay aj gu nangu waaw nit dana ajal boppam ba noppi sax def ay njuumte yoo xamante ne mën naa wàññi tiyaabaam waaye kee moom même bu defoon ay njuumte moom moo def ay manki manki yi doomu aadama waaye aji ka defal moom yéene jim am ci lottu ci mën a def am mbir sant ko nit ngir mu taxawe ko rek daa mot daa mottali yéene jooja waaw yéene jooja rek loola da koo mottali muy mbir mu yéeme nag mu rëy waaye nag bakkan léeg-léeg du ko fekkee ndax nit ki day bëgg a dem moom ci boppam léeg mu bëgg a demaat léeg yu baree bari rek yu baree bari waaye ak jaamu yàlla moom jaamu yàlla rek la yal na yàlla nangul ñëpp ala kulli xaal dañoo wax ne kon nanga ko gaawee beneen euh, tegtal buñ indi di weneen lay moom itam Euh, di xadis boo xam ne ci riwaayi xadis bi la bokk bi nga xam ne moom la Abdullah ibnu Abbas nett li jële ko ci ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam mu ne na ngeen gaawe aj na ngeen gaawe aj maanaam farata ji na ngeen ko gaawe ndax kenn ci yéen xamut lan moo koy gaar fa inna ahad fa inna ahadukum laa yadri maa yuarridu lahu kenn ci yéen xamut lan moo koy gàllankoor ëllëg lan moo koy dal kon ku ko man rek na nga ca gaaw ñaari xadis yi boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo tegtaloo ne eh, aj màkk dañoo bëgg ñu gaawe ko loolu daa bokk ci seeni tegtal wane ne lu war la ci ak gaawe ko ci képp koo xam ne mën na ko waaw ala kulli man istataa ilayhi sabila képp koo xam ne mën na ko mu gaawe ko ci yoonam mu njëkk dañoo gis ne warteef la moo tax ñu ne koo xam ne am na alal ju ko doy ju doy ba mën caa aji am kattan kattan gi dañ daan wax ne kattanu mën a yenu ay bagaasam kattanu mën a tegoo coono tukki bi waaw kattanu mën a tegoo coono tukki bi wax dëgg yàlla léeg-léeg nga gis koo xamante ne daa dem rek yéene waaye ajiwut ndax sa yaay joo xam ne boo doon dem tey Sandaga rek mënoo ànd ak moom ngeen dox dem Sandaga nga bëgg koo dugal ci abiyo ne ko demal màkk aji ah boo moytuwut coono rek nga nar a indi coono nga nar a indi waaye. mën naa am du ko du ko mën a jooxe na mu ware du ko jooxe na mu ware ngeen baal ma waaye nii la demee du ko mën a jooxe na mu ware bu boobaa ndax ku xam la ne ci doxub tawaaf ku xam la ne ca safa ak marwa ku ne ku xam la ne ca fani mun na ya ak sànni jamraat ya ku xam la ca kendaluk arafa ak jaaru musdalifa ga ak coono yi ñu tegoo da xam ne soxla na nit ki am nag aslëf ci kattan soxla na nag nit ki am aslëf ci kàttan ndax am na ci yoo xam ne mën nañ ko cee yóbbaale waaye am na ci yoo xam ne faaw mu def ko léeg ci tawaaf gi am ñoo xamante ne dañ leen di jëlal puus-puus fay ñu puus leen ñu tawaaf mën naa nekk safa ak marwa mën naa nekk waaye nag coona coonay tukki ak yi nga xam ne moo ci aju ci wàllu taxawaay léeg-léeg loolu daa laaj kàttan li ma bëgg wax rek mooy aj màkka daa laaj ak man daa laaj ak man danaa ci ñëw incha allahu taala ci biir waxtaan yi kon ki nga xam ne am na alal ju ko doy am kàttan ba noppi wulu yoon wi wóolu yoon wi bu njëkkoon ba ñu jaar ci yoonu suuf yooyu yëpp da ca doon am bu doon tey mooy wóolu ñi ngay àndal wóolu ñi ngay àndal moo tax na nga tànn ñi ngay àndal bu baax nag na nga tànn ñi ngay àndal bu baax la nit am ay jafe-jafe ca aj ga te fekk ay àndandoo yam àndal la waaw ay àndandoo yam àndal la àndandoo yi na nga leen tànn tànn gi du ma wax ne am na bu wóorut wala am na ñoo xam ne nañu defee du noonu ndax xawma ko xawma ci ñu wóorut wala ñoo xam ne nañu defee du noonu waaye tànn gi xëy na mooy bu dee ku way juram mu teg ko ci loxoy ku mu wóolu mu teg ko ci loxoy koo xam ne ay jikkoom doy na ko am na ak ubbeeku te itam mag mu tukki gisut kum xam gisut kum miin mën naa am sax ay mbiri boppam yoo xam ne kersaak ay mbiram mën na koo ñooru ba du ko mën a wax kon tànn googa da cay bokk tànn googa daa bokk ci yi nga xamante ne dañ koy tànn koo xam ne yii am na dañoo wax ne dafa war ci moom mu gaaw a dem aji joxe ji li nga xam ne mooy farata ja ndax xamut dana dund ba déwénam déet yow mi nga xam ne am nga loo aji ji ren maag yow xamuñu ba xam danañ dund ba déwénam déet loolu yàlla rek ko xam xamoo ba xam buñ dundee ba déwén danañ ko man wala déet danañ ko man ci kattan ndax feebar waxoon naa ko léegi danga ko man ci alal ndax nit amoon na ba yóbboo nit ba yóbbu aw nit ren yàlla dogal ba yóbbu ay nit daaw yàlla dogal atum ren jii ëmut moom ci boppam sax lu mu mën a faja ay soxlaam waxuma ak di yóbbu nit loolu ci kattanu yàlla la nekk ak coobareem waaw moo tax ab jullit ak ku yaroo ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam du doon ku bew mukk wala ku yëkkati ko mukk waaw gannaaw xamoo loolu ñoom ñi ma waxoon léegi muy euh, masabu imam malik imam abu hanifa imam ahmad ak ñenn ci euh, àndandoo imam shafii dañoo gisoon ne dañ ko war a gaawe am ñu gis ne nag manees na koo bañ a gaawe manees na ko bañ gaawe manees na koo yeexe ñoom ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi aj makka ci atum fukkeel ci gàddaay yi maanaam bi mu demee madina ba def fa fukki at ci lay doora aj màkk ñu ne aj màkk ñu ngi ko farataal ci xeet wi ci atum juróom-benneel ci gàddaay gi maanaam ba fa amee juróom-benn at lañ ko farataal mu toogaat fa yeneen ñeenti at door a aji ñu ne kon bu fekkonte ne e, falaw kaana waajiban alal fawri ma aqarahu nabi sallallahu alayhi wa sallam ila sanati al ashira su fekkonte ne gaawe ko dafa nekk loo xam ne lu war la kon yonent bi du ko yeexe ba ca atum fukkil ma ñoom ñu sukkandiku ci ne nit mën na koo yeexee man na mën na koo bañ bañ a gaawee waaye mën na koo man ba pare euh, wutal ko ab dig ca kanam xëy na loolu jamono mën na koo mën na koo indi wala yi nga xam ne moom la nit ki jànkonteel ca yem jànkonteel xadis bi ñenn ci borom xam-xam yi fuqahaa buñ koy jëfandikoo moog bu njëkk bi lenn li dañ koy indi ci ak sopp rek bañ koo indi ci ak war dañ koy jëfandikoo ci alal istihbab laa alal wujub dañ koy jëfandikoo ci sopp bañ koo jëfandikoo ci loo xam ne warteef lay doon moo tax eh, ay wuute yu baree bari dox na ci seen diggante ci waxtu wi nga xam ne eh, ci lañ war a aj wala déet waaye ci gaawe ko yeexe ko bokk waaye wuute yi dox na ci kañ lañ ko farataal am ñu gis ne dañ ko farataal ci atum juróom benneel mi ci gàddaay gi ñu ne kon ku ko yeexe ni ko yonent bi yeexee ba tey baax na waaye gaawe ko woon moom lañ gën a sop am ñu gis ne ñi ngi ko farataal ci atum juróom-ñeenteel ca déwén sa yonent bi aji kon da koo gaawe loolu yeneen wuute la mbokk yi aj màkka dafa bari ay ngëneel yu baree baree baree baree baree bari ngëneel yooyee ak philosophie bi nga xam ne moo tax charia yoonal ko mat naa def ay taxaw seetlu ndax aj ak jaamu yàlla la waaye jaamu yàlla alal la jaamu yàlla la goo xam ne alal da koy def aw yaram di ko def julli gi mën ngaa julli ta doo joxe dara waaye da ngay julli rek soxlawut dépenser alal koor noonu euh, asaka da ngay joxe alal waaye saw yaram mën naa bañ a def dara aj màkk nag da ngay joxe sa alal mooy fay ak dépense yi mu àndal ba noppi defaat nag yeneen effort physique defaat yeneen effort physique yu baree baree bari moo tax ñu ne ibada maliya badaniya waaw alal la joo xam ne wala aj la go jaamu yàlla la goo xam ne eh, jaamu yàlla alal la aku yaram moo tax ak payam pay gu rëy la ak payam pay gu rëy la te it aj maka daa bokk ci jaamu yi nga xam ne ay njariñ da cee nekk yooyu jariñ jullit ñi yëpp aj maka daa bokk ci ngëneelam ya jihaad la ci koo xam ne dafa lottu ci jihaad jihaatu yor jaafi wala jihaatu ne ca eh, front ba di xare ndax mën naa am gisu ko waaye aj màkka taxaw taxawaay boobu euh, Seydina Xasan ibnu Ali radiallahu anhuma moo wax ne jenn waaye daa ñëw ci maamam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko mel ne ku naan ko inni jabbaanun maanaam man dama mel ne ku ragal daal ku xawa a euh, euh, ba noppi doon ku néew doole wa inni daifun ma bëgg nag nga tegtal ma jihaad joo xam ne amuti dëkk waaw hëlluma ila jihadin la shawka la shawkata fiihi jihaad joo xam ne amut ay dëkk jihaad joo xam ne méttiwut maanaam amut jamante ay jaasi wala yu demee noonu ba noppi ma amee ca tiyaaba ju toll ne ku jihaad yonente bi ne ko alxaj jihaad jooju mooy aj màkk moo tax mbokk yi aj màkk yombut la leen tegoo fa coono yu mette méttee méttee métti waaye bu ko delloo ci wut tiyaaba du ko yóbbee ci am njàmbat du ko yóbbee yu baree baree bari léeg-léeg xam ne day bëgg aj ga mel ni këram li muy jàmbat ci aj lépp lu naturel la moom sax bosam neex na waaye daa yaakaaroon ne moom daa dem tourism waaw ab touriste la wala yu demee noonu te fekk demewut noonu moo tax léeg-léeg nga dégg VIP mën naa nekk nag ku yàlla may xéewal defal waaw léeg-léeg gis koo xamante ne jàpp na ne moom dox ba ñaq sax waru koo def bu ko defee aj gi aj gi daa metti te waruloon a mettee nii Ah, xam nga koo xamante ne sa néegu bopp nga nga yoroon eh, néeg bi ne suñu kër ñun ci yaatuwaay yor sa wanaku bopp muy sa toilette bopp tey nga bëgg a dugg ci néeg bokk ko juróom-benn nit ngeen bokk wanag donte bu ngeen góorgóorloo man koo bokk te kenn du lor moroomam te du xaye di waaye loolu bëgg nañ nga yar sa bakkan bi bëgg nañ nga sa bakkan bi bu dee koo ko comprendre noonu